Nous commencé par monsieur, monsieur le sous-préfet, euh, qui est le président du comité local de gestion des épidémies, qui a pris l'initiative euh, d'Ougoussi Askanbe, sensibiliser leen mais aussi may leen ay masque donc loolu lu am solo la jàngat bi si am nag mooy que ni gis nañ que nit ñi jàpp nañ ni feebar maa ngi fi parce que gis nañ ñu bëri ittewoo nañ masque yi te loolu vraiment liñ si mën a kii rek mooy euh, euh, gën nañ leen porter message bi que ni feebar bi jeexagul que nit ñi nañ gën a respecter mesure barrières yi mais aussi nañ dem ci bërëbu ñàkkukaay yi ñàkku donc yaakaar nañ ni euh, journée bi dina am jeexital bu am solo ci xeex Covid bi fii ci biir yëmbal. waa gis nañ nag ne situation bi wàññeeku na bu baax a baax cas nombre de cas yi ñu ngi wàññeeku su ma jàppee ñetti fan yi mujj man yëmbal sax aw ma cas donc trois derniers jours yëpp man biir yëmbal aw ma te su ma jàppee ci suñu zone tampon bi nga xam ne fukki malade ak ñeent la am saa su nekk fees del ñeenti fan yi ñu ngi toll si ay juróom-benn ba ñeenti malaat actuellement ñoo fa nekk nii waaw donc situation bi deuxième dose AstraZeneca bi ñëw na donc poste de santé yëpp jot nañ seen dotation pour mën a rattraper nga xam ne nii ñoo waroon jël seen deuxième dose. donc laa tam ñu ñaan askan bi ku ci nekk fa nga ñàkkoo woon sa première dose AstraZeneca nga delluwaat fa ñu ñàkk jox la sa deuxième dose AstraZeneca loolu itam lu am solo tey jàppoon benn bis boo xam ne comité local de gestion des épidémies bu yëmbal dañu xalaatoon wàcc sur le terrain euh, dem vers askan wi gën leen a sensibiliser ci Covid bi nga xam ne mi ngi fii ba léegi te di def vraiment ay dégâts yu yu yu yu métti métti ci population bi euh, ñu gën ko xam mais aussi ñu gën a respecter les mesures barrières. mesure barrière yi nag mooy takk maski yi euh, di raxas sa loxo foo toll wala ngay laal alcogel ak aussi ñu boole ci tamit dem dem ñàkku ji donc distribuer nañ quantité yu am solo ci masque euh, distribuer nañ ci aussi ay quantité yu am solo ci alcogel fii aussi ñu ñëwoon benn point de vaccination bu nekk fii euh, bu ñu décentraliser ñu ñëwoon ñoom tamit pour superviser ko mais aussi encourager leen ànd kook ASC bi nga xam ni moo nekk ci ci gox bi muy ASC Neexle. ginnaaw liggéey bi am solo bi nga xam ni kilifa yi au niveau central ak ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kër docteur bi def nañ ko ci ak ñaanu kilifa diine yi seetlu nañ ni fan yi kaa yi mi ngi wàññeeku waaye nag loolu euh, bu ñu amee jàngat tuuti euh, yaakaar naa warul tax population bi bàyyi li nga xam ne mooy parce que daloon nañu fi temps yee passé Euh, dañuy dem ba gis ni kaay wàññeeku na bu baax a baax a baax macha allah waaye bu ñu toogaatee tuuti rek ñu amaat ay pic yoo xam ne vraiment day jéggi dayoo donc nag euh, kaay wàññeeku yi warul tax population bi bàyyeeku euh, bu weesoo loolu aussi dañoo nekk ci nawet. yàlla def na ni fii ci biir yëmbal am nañ fi ay point yoo xam ne dafa xaw a critique tuuti ci wàllu ndox mi donc ci loolu yëpp dafa war a tax nit ñi ci wàllu hygiène ñu gën ci farlu te bu weesoo Covid 19 bi mesure barrière ñuy wax yëpp ay mesure d'hygiène la rek. nit ñi mooy lan fexe yow ba yenn jàngoro yi di la dugg jaare ci yenn euh, bunt yi nga xam ne moom la yaram am ak foo toll say loxo du set donc loolu même bu dul Covid sax yaakaar naa nit ñi dañ ko war dañ ko di def fu ñu toll donc euh, na nit ñi gën a farlu ci mesure barrière yi nañ xam ni feebar bi jeexagul ay pexe peut-être ñi ngi fii ci fànnu vaccination beeg yooyu waaye daal bu ñu bàyyi suñu loxo moo tax ñun wax dëgg yàlla ak ñii ñu àndal yëpp ci liggéey bi muy collectivité territoriale yi muy le sanitaire te docteur Dieye jiite ko muy présidente euh, nu mu tëddee conseil consultatif femmes yi présidente bàjjenu gox yi ak bàjjenu gox yi nekk ci biir yëmbal yëpp. ak vraiment beaucoup d' acteurs de développement wax dëgg yàlla bugguma lim ndax comme ñu bare peut être minaguma leen bugguma lim di juum waaye acteurs développement yu bare bare jàpp nañ ci journée tey bi ñu ànd kook ñoom wàcc sur le terrain vraiment yokk sensibilisation bi ci population yi. waaw zone yi moom pour ma lim ko fii wala ma joxe nombre bi dina xaw a mais nañ jàpp ni quand même am nañ fi ay zones yu xaw a critique nañ ko nangu hmm? euh, terrain bi aussi depuis presque plus d'une semaine léegi ñi ngi ci terrain bi chaque jour que Dieu fait man ak équipe bi ma yàlla booleel muy l'adjoint au sous-préfet le commissaire de police les maires ak acteurs développement yëpp chaque jour ñu ngi wàcc sur le terrain di xool point yi di xool aussi ay solutions des fois nag population yi duñu comprendre parce que mën nañu gis le terrain ñu foog ni dañu ñëw noonu rek pour xool mais euh, liggéey boo gis dafa am nu koy organiser dafa am ay techniciens yu ñu àndal ci terrain bi notamment sapeur pompier yi bu ñu ñëwee xool ñoom ñooy gën a mën a taxaw wax ni ñu lii mooy solution boo xam ne bi ñu ko ci defee peut-être population yi dinañ am soulagement. dugub ñu di def solution yoo xam ne dañuy faj jàngoro créé waat beneen jàngoro encore moo tax ñuy def loolu mais na population yi xam ni daal. autorités yi yëg nañ jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekk fi mu nekk nii am na ay pexe yuñ ci jot a def mais dinañ yokk pexe yooyu ba nga xam ne bu soobee yàlla balaa muy yàgg mën naa am problème mu ndox mi moom nit ñi dinañ ko dinañ ko xaw a wan gannaaw incha allah